ñaan suñu borom mu wuyu leen ci lii ñuy sàkku yàlla wàcce taabal ji nit ñi di xool muy jege si ndànk par ndànk saa bu jege rek Isa ñaan yàlla mu def ko yërmaan te du ko def muy mbugal def ko muy barke tey jàmm noonu lañ ñëwee ndànk moom taabal ji di wàcc si ba wax ba wàcc ci kanamam Isa alayhi salaam ñu muuree ko wax ni bismillah khayr rasiqin ku mu ne juróom-ñaari jën moo ci nekk ak juróom-ñaari mburu am ñu ni vinaigre moo ca ak rummaan ak yeneen meññet mun leen bismillah lekk leen ñu lànk ni ko xalaatuñ ko duñ lekk mukk da ngay lekk ba ko mun leen yéen ko jëkk a sàkku kon te yéen a bañ bañee mu digal fuqaraaw yi way ñàkk yi ak way tawat yi ak way lompañ yi te jege woon nañ junni ak ñetti téeméer ñu lekk ca waaye ku ci lekk rek lépp taw bi la daal di wér te nag am ak rëcc lool ci ñàkk gi ñàkkoon a lekk kon Isa ay mujisaatam li ci gën a fës génnut kon sos ak dund delloosi ak dund ak delloo si jàmm ci yaram bi ñetti mujisa yi jooju gën a fës ci mujisaati Isa sos ab dund te mooy bind ci ban defar ci ban lu mel ni am am picc wol ko mu daal di naaw kon foofu dafa sos ab dund lu amatul ak dund ko dundal delloo si ak dund mooy fekk ku deewam bi yàgg mu julli ñaar raakaa ni ko xumbeetu la mu daal jóg ak dégloo si jàmm ci yaram yi nit ñi yaram ku tawat te loolu ba tey aw xeet la ci sos ak dund rek aw xeet la ci dégloo si waat ak dund kon ñett yi moo gën a fës ci mu'jizaat yi Iisaa daan feeñ janaaw bi mu liggéey ci ban lu mel ni picc wol ko mu dal di naaw mu daal di nekk am picc bi bismillah ki abni le mu woo ko mu wuyu ngir ak dund moo jël fi ci moom mu mel ni kon mujisaat yépp ci xeetu daaw li mu doon def la dañoo nuru dafa xeetoo ak li mu doon daawa ngir li mu doon woote moom mooy tarbiyatu ruux dundal yar ruux ak gëm bés penc gëm ni am na beneen bés buy ñëw te lépp lu ñu defoon ci rafet dañ ko wuti fay lu ñu defoon ci lu ñaaw danañ ko wuti fay kon lay xikma ci mujisaati Isa ñëwee ci xeet wi lenn ci borom xam ne dañ koy laal di wax ni lay sabab bi dëgg-dëgg mooy xeetu mujisa wi dafa xeetoo ak waa jamono ak ñun jamonoonte ndax ñoom da caa am kuréel bu daan wet di bis penc muy sadoo xiyam yi di wax ne mënta nekk kon dekki lañu weddi mu dekkal suñ kanam ñu jëf bañ xam ni kon bu leen ko yàlla déggee bi dina ko bële am na mu wax nag ni noonu la yonente bu ne naka noonu yonente bu ne ay mu'jizaatam dafay dikke ci lu xeetoo ak waa jamono jëm jamonte noonu lañu waxee ne Moussa salaam dafa jamonte ak ay nit ñoo xam ne ay njabarkat doon ñu ñaw ci ak njabar Isa Moussa andil leen lu leen jommal lu raw lañ doon def fuuf ndax woo na leen ne li ñuy def ñun xam nañ ko ak njabar la am nañ ci ab expérience bu leer xam nañ lim ma ak lim mën buñ gisee mbir mii Moussa def mu weesu li liñ doon def ñoom liñ xamoon ci njabar danañ xam ne mbir mii kat euh, jógewul fenn fu dul ci yàlla